Monsieur le Président cher collègues askanu Sénégal loi bi ñu fi indi tey dama jàpp ni que c'est un aveu c'est un loi c'est une loi parce que bu fekkonte ni président de la République liggéey na ñetti at yii ñu wees tey jii nii day fekk ni askanu Sénégal dañu juboo ànd nekk benn waaye dem ba mu des weer wala yu yees weer nga war a dem nga ne sama askan dafa xaajaloo dañu féewaloo reyante yi bëri na naa fexe ba ñu teg loi d'amnistie c'est un aveu d'échec total c'est une loi qui avoue l'incapacité c'est une loi qui avoue l'incapacité de l'État à faire à ce qui est sa mission régalienne trois ans 2021 ba tey mënuñu xam lan moo xew lan moo boom xale Sénégal yoo xam ne boom nañ leen trois ans février 2021 février 2024 mënuñu xam lan moo xew ci biir réew mi c'est une loi qui s'inscrit dans le cadre d'un coup d'état constitutionnel parce que ça fait partie d'un plan pour pouvoir changer les élections depuis qu'on est venu ici voter pour que le, la commission d'enquête parlementaire vienne. Cette loi s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi, messieurs qui parlez, vous qui aboyez du fond de la salle, est-ce que Munda Khol, la femme, la mère de Lansana Diarisso, vous qui aboyez du fond la salle, est-ce que Mungen Khol, la mère de Lansana Diarisso, qui était allée garer sa voiture, qui avait 21 ans, qui livrait de des marchandises ñu boom ko oto gendarmerie fël ko ñu yóbbu ko avec des bras fracturés des membres fracturés et semblant Lansana Diarisso est nekk ci biir gendarmerie pendant des heures kenn wàllu ko mu yuuxu kooku biir gendarmerie la deewee lan ngeen di wax yaayu kooku lan ngeen di wax yaayu ñaar ñi nga xam ne ñu sant Diallo Fatou bintu Diallo ak Oumou Kalsoum Diallo lan ngeen di wax ñaari ñooñu nga xam ne ba say seen yuuxu ñu ngi jib te yuuxu yooyu seen yuuxu yi mënu ko fay mënu leen fay yuuxu Fatou bintu Diallo ak Oumou Kalsoum Diallo lu ngeen mën a yuuxu yuuxu mënu leen fàtte yuuxu yooyu bu fekkee ni te ngeen projet de loi bi vous aboyez di fond de la salle parce que vous ne savez faire parce que vous êtes payés pour trahir votre peuple et trahir votre serment de voter des lois pour le peuple sénégalais. Mesdames, Messieurs, vous savez très bien, vous qui parlez, vous êtes pleinement conscient xam ngeen ni que projet de loi bi dafa dugg ci cadre deal politique bu ngeen bëgg a def pour toxal élection yi di woy di wuyoo ay projet de loi ci ngeen yaakaar ci ngeen bëgg a pour mun a bokkaat ak ñeneen bokkaat et loolu jaaduwul loolu tax monsieur le président il faut quand même Ousmane Thiam, s'il vous plaît, laissez-le continuer. Vous avez la parole, continuez. Continuez, non, mettez-le. Man, je fier Je suis fier d'avoir porté les combats que je porte. Je suis fier de dire, de parler au nom de Lansana Diarisso, de Abdoulaye Bari et de toutes les victimes. Je suis fier de pouvoir, pouvoir dire que je ne vote pas cette loi. Bon, exposé des motifs, Madame le ministre. Madame le ministre, dans l'exposé des motifs, vous ne faites nullement référence même aux victimes. benn yoon waxu leen ci ñi nga xam ne boom nañ leen ci élec ci ci kii waxu leen naqaru ñooñu nga xam ne dañ leen boobu waxu leen ci dara alors et je fier de ça et je suis content et je suis content de parler de défendre la constitution e de et de défendre la république mais madame la ministre quand vous faites des ex des, une loi comme ça et que l'exposé des motifs pas une seule fois n'évoque les victimes benn yoon tudd leen masawu leen waxu leen ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci élection ci événement yi dafa mel ni ñoom kon tewuñu ay ay ay pièces de monnaie lañu yu ñuy wecceekoo ci pour que deal politique yi ngeen entreprendre mun a dem parce que li ngeen bëgg te loolu xam na complot politique bi nga xam ne moom la ñu nekk pour toxal élection yi randal élection yi loi bii ci la biir la bokkoon te comme loi boobu ñu rejeté woon keroog. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Alassane Ndoye.